ngay man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu ci kolos bi auzu billah bismillah innahu yàlla ginnaaw bi leen ñu siyaar leen ñëw nag ci naafila tey yi di juróom ñaari la guddi ñu ne ko julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk faatiha benn yoon ak kaafiruuna ak lixlaas lu ci nekk juróom ñaari yoon ñu laay yu ci nekk tees na ko ci bindal aw yiw dana mel ne it ku sarax junni dinaar te lu ñaan yàlla mu ko te des na ko bindal tuyaaba ju toll ne li mu bis yi àdduna yëpp xarawut ne des na ko ca tabaxal njëndal lu rëy ci àjjana naaf léegi nag ñu bàyyi ko ci téere émission bi ñuy wax Qurratul Ayni yàlla na yàlla fay Cheikh Souhaïbou di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax s'abonner boo noppee ñu teg ci cloche bi